dëgg la xam nga ne yow ah. ah. eh, daan na ko. Xaadim daan na ko. Xaadim daan daan na liiru jaan. waaw logique na logique na logique na bëre na bëre na daan na ko te ñoom ñaar ay xarit lañu ah ñoom ñaar ay xarit lañu.